maanaam xasida bi ñu ngi ko tuddee ak daaliya li tax ñu ko wax daaliya mooy li nga xam ne wéyam yi ci deel lañ xem xasida bu mu mën rek su la neexee nga de ko askan ci xaratu ay wéyam daanoo moo tax xasida boo gis ay wéyam buñ daanoo ci deel rek bu la neexee nga ne daaliya la wax gi ñu koy wax daaliya loolu ko waral mm-hmm. waaye du turam nag mm-hmm. mu ngi tudd ak taxaani mm-hmm. taxaani mooy ay ndokkel sëriñam bu haji woon makka mm-hmm. di ibnu nasirin mm-hmm. moom la ji doon ndokkel da ko ci tagg mu nekk xasida mu yéeme ndax man na juróomi téeméeri wéy ak lu topp te amul benn daaneel wéy bu bu baamu wala dana jëndeew noonu te li muy tegtale mooy waa ji ku xam waxi arab la mu nekk xasida bu riis itam ci wàllu tasawuf nekk bu riis itam ci xam-xam yi ci waxi arab te ñaar yi luñ ci mën a dafa yitteel ci ab jullit mu xam leen kon xasida la bu xam ne dafa lamboo lu xam ne yitteel na ci ab jullit mu xam leen loolu moo tax gannaaw bi mu ko wooyee ba biib la ko jël saraa ko bi mu ko saraxee mu dem ci jàngukaay yi nit da ko jàng di ci jëriñu ba bisu tey bii nii hen su ko defee nag arab baaxoo xut di tagg nit rek buur dali ca ka mooy lu gën a bëri rek dafa ay wax yu mooy jiital mu nekk jaarukaayam fekk ba muy roccee ko mën a dem ca lay soxlaam loolu nag lu gën a bëri danay doon lu am alaaka ak cofeel lu mel ni jël as ndaw di ko mellal di wax rafetee wala jël ay soppe yoo dëkkatoon wala jël ay barab yoo neex yu neex yoo mosoo nekk wala du nekk li tur na booy def yàq nit. Hmm. façon yooyu lay say dooma roccee ko ba jëm ci ka mooy tagg. Hmm. gannaaw bu tagg yonent bi xewee nag. xam hmm. nañu ci tagkat yonent bi. wala bu ñu tagg nit yàlla. taxasal yu xiir yooyu duñ koy def. dañoo jiital ay melokaan yu askanandoo ku ñuy tagg. mooy wax loo ne day delloo nit ñi ci yàlla. koy bañee rocceekoo mën a dem ca ka ngay de tagg rek buur dali ca ka ngay ko nangoo itam may danay xam ak wa tayibil mutanabi daw wax ne ida kaana matkun fannasibul muqaddami ak kullu fasihin qaala siran mutayimu mu ne ku ne la wéy rek da dafay def xasal doog a dem ca kamay tagg xanaa su soppu la ba tax dañ dul mën a wéy mu ne la xubbu bni abdillahi awla fa innahu bihi yubdau sigrul jamilu wa yuxtamu mu man ki ma ñor ba ma ba ma jóg moom lay tagg moom lay jiital ci sama kag moom lay tudd loolu da koo def rek ci nu mu bëree rek ak nu mu xamee ay fànni wéy rek waaye firiwul ne xasal bokkul ci wéy ndax bëri na ci wéyam waaw hmm. selon ko baax ndax bëri na ci wéyam moo woy ahya wa aysaru ma qaasaytu ma qatala hmm. wal baynu jaara hmm. ma qatala fàtte naa ko waay ahya wa aysaru ma qaasaytu ma qatala والبين جار على على ضعفه وما اعتدل loolu xasan dëgg la mm-hmm. moo tax kii xasidaam bi buñ mm-hmm. ne sëriñam la ciy taggit mm-hmm. buuru rek jaari ci sëriñ ba xam na ay wax yum jiital li aji ci cofeel lii jëm ci luy delloo nit ci yàlla li jëm ci luy xee nit ci jikko bu rafet lii jëm ci nett ay jaar jaaram ci tukki boro ceebu dem ca samay tagg والعارج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد وأجد من الجذع الذي بحقيبه أجداد أصدع العصير الهمة وقف المطي وارفع على الربع المحيل هنيئة إن الربوع ربيع قلب الأجنبي wa kafil matiya ala diyaari ahibatin kaanul xiyaasa min azamanil ankadi mu ne xarit na nga texee sa bi mun arijil xitaabi ci lunku lunki doj ya al wurrati yede way root bayna lisaabi ca diggante ñall ya wa bayna zatil armadi ak diggante suuf yede aji xame melaw doom taal dafa mel ni dafa am ku muy waxat mm-hmm. ku ne ci yoon mm-hmm. muy ko tegal muy ko tegtal mm-hmm. fu xam ne taxawukaay la mu ne boo demee ci virage ba fa doj ya nekk te doj woo ci gis muy xat bun waarit te diggante ñall ya te suuf yu rafet ya taxawalal sa daaba foofa la alxat bul waarit mooy doj woo xam ne dafa jege ndox ron ngi defaral de tooy dina bu baax a baax maanaam dafa bëgg a wax ne mm-hmm. ak yow lu mën a xew rek mm-hmm. saxal ci sopp nit yàlla yi mm-hmm. ak itam da leen teral ak itam daf leen ñuy saroy téef bu ko defee taaba bi ngay téye mooy ruux bi sa ruux dafa ci loolu ni nga gisee doj suñ sax lay sax rek ngelaw du ko fii taw du ko fii jëlee safara du ko fii jëlee nit yàlla yi noonu la ñoo ci dëgg keete seen bu baax a baax waaw mm-hmm. nguur du leen tax a fàtte yàlla mm-hmm. du leen bëgg àddina nii rek mm-hmm. xalal du leen tax a fàtte yàlla daraja du leen tax a fàtte jigéen du leen tax a fàtte yàlla loo mën a ñëwit ñun ñu ngi teg ci dëgg rek sax loolu moo tax ay dëgg su ko defee itam su ñuy sës mooy ñaari mbir benn mooy sariha beneen bi mooy xaqiqa te bu ne seeni saahir day rafet kenn du leen mën a jam ndax ni xamee teggiin ci ànd ak sariha bi seeni baatin day sell duñ leen gis mukk ci payu sama borom ndax ni ñuy dundee ci tawhid bu leer a leer moo tax ñoom dañuy rot dañuy root min ayni sariati da root itam min baxril a mu ne ñooñu noonu nga xam ne. Mm-hmm. ñu ngi ci boole sariya ak xaqiqa. Mm-hmm. xam ne sax nañ ci loolu. Mm-hmm. lu mën a taw rek gaal sa xol ci sopp leen. waaw yuhibbu saalihiina. wa lastu minhum. mu ne ñu baax ñi man donte bokkuma ma ji leen sopp rek. la'allii an anaala bihim safaa ndax dana am lu ma jëriñ rek. wa akrahu man bidaatuhu al maasi. walaw kunna jamii'an fi bidaa. waaye ku baaxul. Mm-hmm. kooku mënuma koo wóolu soo yeboo man tanewuma ko mais nag comme wóolu ma ca wóolu. Mm-hmm. soo yeboo man tanewuma ko mais gën a wóolu. ma mm-hmm. ca wóolu gën na ku baax a ren xaar it na nga téye sa daaba. ci xitaab yi ci lunkulunki doj yi. al wurrati yede way root. ci diggante ñall yi. wa bayna zaatil armadi ak diggante suuf su daal di joxame melow doom taal waa gis na nga jéggi minal gisin tukkee ci xur alladi xur wa nga xam ne bi xadiidihi nekk na ci tefesam ajdaasu asdail asir bàmmeeli jëmmi mbokk yi alhummati ña di way dee mu ne ca doje ca pegg ndox ma laa wax dana xamab xóot xóot boo ci sa kanam mm-hmm. waaye ndox newu ca mm-hmm. xóot xóot booba dana ay jonki jonki yu nekk mm-hmm. yu xam ne ay bàmmeel la waaye yëkkateegu ga taxoon ñuy doj foofu nag nanga ko romb lu taxawukaay ba dafa wax saxal ci ànd ak nit yàlla yi te bul dem na xoo ku tudd ku tudd ci moom bul de naxu ci ku tuddoo lu ñëw ci moom mm-hmm. Mm-hmm. xam nga bàmmeel bi yëkkatee ko ne nii mais du dëj mm-hmm. nga kóot kóot yo kóot na ñoom ndox newu ci kon du def sënela bu baaxa mu ne kóot gi yëkkatee bi gi bum na nax na le bëj te itam naam ndox waaw ah. ne damay nekkal nga ànd ak moom mm-hmm. mën a jëlee ci ànd ak moom nekkal yàlla mm-hmm. waaye ko jëmut ci yàlla mm-hmm. du yóbbu kenn ci yàlla waaw waaw ko jëmut ci yàlla du yóbbu kenn ci yàlla xam nga ko noonu baax a baax la tasab man la yanhiduka haaluhu wala yadulluka ala llahi maqaaluhu xam nga loolu baax war baax na ngay lolleeku. moo tax ne waaw waa gis na nga romb. minal gis ne tukki ci xur. alladi xur wa nga xam ne bi haqiidihi nekk na ci tefesam. ajdaasu asdaayil asiir. bàmmeeli jëmmi mbokk yi. alhummati ñi de way dee. war baax na ngay lolleeku. ala ramay ci wàccuwaay. almuhiili bu daa ji hatu. ku nay hatan ak ndiir. mbéyte itam booy dem xam ne benn kër bu ne ci yoon yi dañ ko fa sampee léegi àgg na ci ren ba déwén pour bu nekk noppaloo kaay na nga fa noppalu soo ko noppaloo naan fa lekk fa boo jógaatee toog xàll bi mën naa am balaa ak mar ak coono de tax a gaare danga nga àgg feneen foo xam ne da nga fa mën a noppaloo naan fa lekk fa mën a wéy yaa moom dafa nga jëm ah nga àgg ci barabu escale mm-hmm. danga koy escale mm-hmm. dana waral boo jogaatee mm-hmm. bala ngay sonn ba doo mën a dem nga àggaat ci barabu escale waaye soo rombee fi nga war a escale dangay dem dem ba doo mën a firi wéy mm-hmm. te nag doo am fenn foo noppaloo mm-hmm. doo am fenn foo naanee mm-hmm. doo am fenn foo lekkee loolu nag télé mën naa waral des ci àll bi loolu nag xiif mën naa waral des ci àll bi na nag ah, man mën naa waral des ci àll bi bu fekkee da ngay jaamu yàlla da nga war di sàmmanteeg tëralinu sama borom ci mbir yi waaye bul de jëfandikoo sa xiir teg bopp yi nga xam ne sama borom xam na loo toj doomu aadama mm-hmm. ba tax mu jëfandikoo ci xoyofal yolo mbalal ko nit ki mm-hmm. kooka dañ caa xem fañ la ca xem loo rek mm-hmm. suba da nga defee kattan ba bu ñu àggee ci liñ fa loo war da sagee nga mën ko rafetal waaye li nga xam ne sama borom xam gum xam sa lottu tax na mu yolo mbalal la ko xoyofalal la ko nga duggee ci sa xiir teeg bopp mm-hmm. sànni xooyo falak sama borom gi mm-hmm. te dafa am rek sa kàttan demee mm-hmm. mën naa waral nga dem ba àgg ci lu fadee fade te doo ko talati te mbir yi wax dëgg yàlla taqdimul aham mi wal aham mi noonu la war di doxee te loolu bu moo tax wut yàlla du affaire ëpp nit yàlla jëm ci yàlla du affaire xam nga ni ma la ci yàlla bu affaire yu ëpp nit. Mm-hmm. ëpp nit mu ëpp nit rek la waaw. Ah. war baax na nga loolee ko na nga sax. Mm-hmm. ala rafet ci waa ci ji mm-hmm. xatu. ku ne atan as ndiir. inna rubaa naka waa ci waay. rabion qalbil ak aji jàq. mais ndax barabi noppaloo kaay yooyu le. baax na ci kuy dem kese waqif te na ngay taxawal almasiya waru waay ala diyaari ahibatin ci këri sop yu xam ne kaanoo nekkoon nañu alxiyaasa te xet leku waay min azamani ci jamono alaan këti judaaje xat te itam mu ne yoon wi dana am kër yoo fi jot xam ne ay soppe fa nekk yàgg nañoo xet li ko sonn ci yoon wi nang fa taxaw ndax nga jëriñu ci mooy boo dee ut lu baax mm-hmm. li nga xam ne xamanteeg ñoom fa la jëriñ ca la ngay ut noonu mm-hmm. na nga xamanteeg ñoom loo jëriñoo ci ñoom mm-hmm. waaw gannaaw xam-xam ngay ut bi nga xam ne jaxasoo moom dana la yokk yawute wala mu yokk la gën a takku ci sa alal waaw jaxasoo la moom loo amee loolu bu baax a baax gannaaw yàlla ngay wut ki nga xam ne jaxasoo moom dana la yokk kattan ci jaamu yàlla waaye dana la yokk ak sellal waaye dana la yokk ak rafetal jaxasoo ak moom da nga am loolu rek ba mu àgg waaye waxtu na nga taxawal almatiya waruwaay yi ala diyaari ahibatin ci këri soppe yoo xam ne kaanoo nekkoon nañu alxiyaasa de xetle ko waay min zamani ci jamono alan këri ju daal di way daa mararta te boo rombee te su fekkee wii nga nag fa xayyi yu xayyi sama gàdde xam naa danga jot penc ma ma dëkkee boo ko tolloo nag leen nuyu in hum bu ñu digalee nga firihaale adinu ilayka jëm ci yow mooy buñ la ne aksil na nga agsi awil manasila wala nga nuyu kër soo ko defee tardu dañ la delloo wala boo leen fa fekku nga nuyu boog seen xotti kër ya kër ya sax de boo leen nuyoo ñu fay la mu ne amurru ala diyaari diyaari salma mu ne damay romb kër ya te këri salma moo ma tax di wax uqabbilu saljidaara wa saljidaara may foon miir bi defoon miir bi wa ma hubbu diyaari soxab na qalbi hmm. mu ne duut na xottikat yi ñoom a neex hmm. walakin hubbu man sakana diyaara hmm. <laughs> waa kër ga laa faale waaye xottu tabax moom xottu tabax rek la kii la nee na boo demee këram ñoom bokk boo leen fa fekkee nuyu leen boo leen fa fekkulee itam nga tabax ya non seen tabax ya du xotti tabax rek xem ca bu baax a baax. Mm-hmm. mooy koo mën a xamante ci ñoom. Mm-hmm. xamanteel ak ñoom. Mm-hmm. koo xam ne dajeeg jëmm faat na la ci moom. boo xoolee ay jeexitam ji la jëriñu ci moom. na loolu mooy li mu bëgg wax daal. ndax am na foofu yal na ko yàlla jël. te def ci barke. def ci tey jaaxal njëriñ. def ci njëriñ ci hecca ko gëmbir mm-hmm. lay doon hecca mooy tëddaanga yi dukkum neex mu mm-hmm. yéeg la tëddaanga ju ànd ak kaataanga mu mm-hmm. ne kuñ làq day raw lakinnahum li fi nekk ñoom yetloo seen dëkkandoo dana niisoo biim ci ñoom an walidayni ci ñaari wayjur wa mawlidin ak barabu juddu mooy lenn daal moo leen yàq su fekkee dana yàq nit mooy dañoo mën a yeesal gën baax ci ku jox ci ñoom ba nga xam ne boo demee ba ci ñoom nañ la yaatalee mën na laa tax a fàtte ba nga juddoo mën na la tax a fàtte nga bokk yaa googu nag du sikk kon ñoom amuñ sikk wala nag xaw mun aw nit lañ xafisun ñu da way tedd jaaruhum aji làqu seen wala seen dëkkandoo lakinnahum li fi nekk ñoom mm-hmm. yatloo seen dëkkandoo dana niisoo bihim mm-hmm. ci ñoom an waalidayni ci ñaari wayjur te mawlidin ak barabu juddu mm-hmm. ñu nekk ay mag nekk ñu digg doomu nekk ay gune mag ña ñi gën ci mag ñi lañ doomu ñoo gën ci ñuy tolloon seen gune ñoo gën ci gune yi maanaam min kulli di somatin ci bépp borom ak rax bi jaaw mm-hmm. ñoom da nga ci gis ay mag yoo xam ne seeni bopp dafa def ay kawar yu weex judoy mm-hmm. leen kay delluwaay mm-hmm. mag moo xam ne day nekk féegukaay suñ nattalee ne amatul kàttan ak jëmm itam mu ngi am kàttanal texe mm-hmm. mu ngi dese sell gi mm-hmm. ak xel mu rafet nii mm-hmm. saa su dag-dag di tee rek bu njaaree ci tracéem rek dal di gàgganteku judaylun muhakkak mooy bant boobu gëlëm di xefenoo mu ne judaylun muhakkak xam nga bantam lay dox waaye du bant bu ne mën na ko bant bu yàlla war a jëmmi gëlëm mënu ko bant buy gaasee mënu ko bantam mm-hmm. lay dox mu mm-hmm. ne mi nga xam ne mm-hmm. moom bu amul kàttanal jëmm itam ki am kàttanal jëmm ci lay wéeru ci yenn mbir ndax moo ko tracel fu muy jaar moo ko jox xalaat yu rafet mu ne ko gis ci nag mu dem mag mag moo demee noonu la te kooku bu ñuy wax mag ko mooy ki am solo waaye nekk bi di tawtaat yu bëri. te amoo xel mooy jëriñee kenn. Mm-hmm. amoo yéene ji rafet bee jëriñee kenn. te mm-hmm. moom xanaa yow ba ma juddoo ma yàgg rek. Mm-hmm. waaye du la mag maanaan nag. wala min kulli di somatin ci bépp borom ak rax bi jaaw. ñu doy leen kay ju doy lu mooy delluwaay. ray seen courage yi dunga rayal pexe. parce que min bu mel ni filaaw yi ko ci jafe-jafe musaddadin kattagare guñ jubale xam ne saa su jafe-jafe dikkee saa su tag-tag dikkee da ngay fekk muy borom xalaat bu rafet ba nga xam ne suñu jaaree si ay taw jihaatam la jotoon dana mujj sotti mm-hmm. la tagoon dana mujj tàggal moo tax seen mag ña kenn mën da ñàkk ñoom soxla ndax bañ faree waa somma ak aji gudd ci bakkan mm-hmm. mu tëyi leen ko dem bañ rus xam ne si ñoo xam ne bokkuñ ca mag ña mm-hmm. ñu leen tuddee ay suyoo mm-hmm. waaye ay kuhóol lañ leen a tuddee mooy ñoo xam ne romb nañ ñi leen tuddee ay ndaw te àgguñ ci ñi leen tuddee ay mag su waa xelam mag day dikk bi ci ñoom te kàttu mañ di jeexagul ci ñoom. muy mm. mën a jëriñoo ci a jëriñoo ci seen i xalaat. mën ci seen i mm. jëmm. Mm. ne marxala boobu bu ñu tolloo. su lay ëppee njëriñ. Mm-hmm. mais da ne sang mu ngi toll ci kër lu waasam maa ko gudd bakkan. Mm-hmm. mu tey leen ko dem bañ ruus. Mm-hmm. kaat bin ku mel ni jaasi. baatirin jaraaji bagge. ah ba too gis xatu nga min naibaati ba kaw kawi jamono yi mm-hmm. mujarradin jële ci ñu bocc mm-hmm. koo xam ne ni muy yebee toppatoo mbir mm-hmm. dafa mel ni gerte gi ñu daal ba mu ñëw ni moo yebee dàggare loo xam ne kala ca war a liggéey xalaatam da caa am njëriñ bu baax lu xam ne yëngatu moo ca war a liggéey naka nag kattanam da caa am njëriñ bu baax kattan moo ca war a liggéey yëngatoom da caa am da caa am njëriñ bu baax ka ka abdin ku mel ni jaasi baatirin gilaaji dagg hmm. aadatta hoo jis xatu nga ko lil naayibaati ci xew-xewi jamono yi hmm. mu jarradin jërëji ñu bocc hmm. jawdin ku mel ni taw ak waame la dajoo din fatab walla fa maye mais koo xam ne buy jëriñee. njëriñ hmm. lu yaatu lu daj lay jëriñee. Hmm. day mel ne taw buy wàcc rek. Hmm. xamul kii mooy laaj. xamul kii laajul. xamul kii mooy joxe gannaaw. xamul kii joxewul gannaaw. buy sotti day sotti rek. mooy doon nag buy jëriñee. xamul kii a ñaan. kii du kii ñaanut. kii ay tagg. kii du tagg. kii fay njëkk ëllëg kii du fay njëkk ëllëg. mu daal day gis ne ku jëriñee la rek. muy jëriñee. wa taw din te mel ni doj saamixin wuraaj yëkkateeku xilman ci lewet mu doon ku lewet ku mën a muñ yu bëri mel ni aw doj bu mag nga xam ne bootaalee ci kaw dara waa jur xéegee ci kaw dara waaye nit luñ mën a def ci kawam itam dara mu nga dem lu ne xattan na ko ci ñi nga xam ne ñoom la tiim waaw din te mel ni gëlëm sama danin guraaji kattanu fil xutoo bi ci mbëmbëre yi te itam ku mën a muñ la nag comme gërëm goo mag nuñ mën a muñee mën a muñ coono biir bu yàgg dem te du tax mu yokkat mën a muñoon luñ bëgg biir bu yàgg te du tax mu yëti ceer mu mel nii ci leen xam nga mën a am kooku mën a muñal luñ bëgg la. Mm-hmm. mën naa am fit bu yàgg muy dox. bu mm-hmm. taxaw mën a muñ coono la. Mm-hmm. koo gis ñoom mu ci suñu ko wala fi. noonu lay mën a muñee ci bëgg. xam nga waaw din te mel ni gërëm sama da din guraaji kàttanu fil xotoo bi ci mbambare yi. mag ñi nii lañ mel. gune yi nii lañ mel. wapatan ak kóor yi nii lañ mel. wapatan ak gune goo xam ne la oo ñaal ko. doonaawu këhalin day walit mbañurus mm-hmm. nosadan ci teewaay xare ku ci toll ci futuwa mooy mm-hmm. xat yi ñuy waxee ne borom ndaw la mm-hmm. day doon ko xam ne boo ko yóbboo ci xare taxawaay ba nga fay am këhlu du ko fa am dafa am ñoo dañ naan këhlu moo gën ndaw ci taxawaay ci xare masa boobu ma tax ne ku ci toll ci futuwa ñu naan fasaala taxawaay ba mooy am ci xare këhlu du day am way jal ma seexati ak xelam ay mag te itam ku jëfe ndaw jëmm jaare do ndaw mm-hmm. waaye xel ma mag xel ma mag lay do mm-hmm. ndax ku jaay ndaw it fekk na mag ñi yar fa moo tax mm-hmm. mag ñee ko yar fi hadasati am redin ànd ak ndaweeg soyam xanaa jëmm ja ngay gis rek ma amee taaram ndaw dafa ko tan ak gune gu xam ne la woo ñu xam ne ko yoxanaa u këhalin say walis mbañirus masadan ci teewaayu xare waxijal masixati ak kalam ay mag fi xadasati amradin ci ndawe toyam am nan mooy xale ba amagul sawar yaram dafa def benn muy waqfin kade ku ñu taxawal ci moom nawaatinum ni mu rafetee li sabahatihi mu ne ku jaay gune fu mu nekk moom rek la ñu bëgg a xool ndax taar ba mu wa masaame woon ak i nopp la sanan ngir fasaha te buy wax it moom la ñu bëgg a dégg ndax fasaha fasaha wala itin te de gaynde mu xarradin nga de guñ merloo te li xaay ci ko ñu taxawal alayhi ci moom nawadiroon ay bët li sabahatihi dañ koo xasas ci wala waqfin alayhi masaami'un waaye doy la waqfin ba woon ca gannaawam masaami'un ay nopp la ko nag ngir fasaha walaytin te ne gaynde muharradin nga dégg ñu merloo te liqaayi ca daje mooy daje ca xare ñu yóbbu loolu man ñoom insha allah qurba dame fi harasaatiha wasan jidan xurral xamaa'imi jadi فلعل عبرة ساعة يصفى بها كرباب وجه في الجنان مخلد ثم اسقها فلطالما أسقيتها بدل الحياء بمعين عينك تسأدي وطن عهدت به الشبيبة والسباع kilfayni laysa axuhuma bi munakkadi warafaltu fi aswaabi aysin basiqin azabatuhu aniqil muhayya argadi loolu doy na mu ne waa fit na ngay bëbbal xuruba dame mbuusi rongañ fi harasaatiha ci dingiri barab boobu barab yooyu foofu ma waxoon ne nang ko jaar nga nuyoo fa mm-hmm. xamanteeg ña fa nekk ndax ñu baax a xam lañ mm-hmm. muy suyooxuhum wa kuhóoluhum wa subaanuhum ñëpp ñu baax a xam lañ mm-hmm. mu ne taxaw fa ba taxawee ci barab yooyu nang ko jooy bam tooy waxtaan ci daan na ngay dimbandikoo xural xamaa imi way weexi niir yi soo ko defee tun njët def na la dimbale su fekkee amuloo rongoñ yoo ba mu tooy nga ñaan loxo ci niir yi buñ la jàppalee mën nay tooy fa laalla abrasa saahatin xaj na rongaña benn waxtu yusfa des na saafara bi a ci sir baabu wajjin sax cofel muxalladin gëre guñu belal fil janaani ci xol mën naa mu ne ndax mën naa am cofeel sax dakk ci xol doy jaaxle doy coono ku taxaw jooy ko ab diit rongañ yi tuuru ci dalal dara innal bukaa wa sifaau min al jawa bayn al jawaanix mu ne loo fees xol te mënuñ koo wax jooy lañ koy fala la abrata saatin xëy na rongaña benn waxtu mm-hmm. yusfa des na safara biha ci moom irbaabu mm-hmm. wajdin sax ak cofel mm-hmm. muxalladin gëre gu ñu belal fil janaani ci xol janaan mooy xol bu ñu jinaan tol su masqiha nandalal barab yooyu badalal xayaa ci wuutu taw bi ma xëy na xëy na que ci yoon dew sëbët soo ko defee tas at danañu lay wala taalama ak xaytaha yàgg na boo leen ñaanale nandal ay barab la yoo xam ne heure bu leen mos a tudd danaa sakk yan laha yan na fay taw dafa taw maa ngi leen ñaanal nandal mu ne kon boo ko taxawee war nga jooy ba mel ni taw na fa su fa tawul it su masqiha nandalal barab yooyu matalal xayaa ci wuutu bi ma xëy na xëy na que ci yal dew sëbët boo amul taw nandal ko ci sa rongañ soo ko defee tas àddina ñu lay waa ko amul bàq itam xam lay xala taala ma ak saytaha yaa gën a boole ñaanale suqiya ne ko a ah, dëkk bi lu ci santaane yi mu ne li dàq ci jaar jaari dund doomu aadama ci àddinaam fi ci dàq foofu laa ko jeexalee watanun dëkk la boo xam ne ayittu mine naa bii ci moom asabi bata ngune asabi bata ndaw wasiba ak ngune il fay ni mbir mu ne ñaari xarit yoo xam ne lay saaxooma di seen bokk ñoom ñaar bi mu nekk din dëkku ñu xatal moo di dëkk bi nga xam ne ci laa jeexale ayaamu sabibati wasiba waaw mooy dëkk bi nga xam ne ci laa jeexalee ayaamu sabibati wa siba muy fan yi dàq ci fan yi dund ak doomu aadama xam ne foo ko jeexalee du naqadik yow du naqadee tey yow ndax naqadee àddina yi booba dara seegu ci ci yow wata nun dëkk la boo xam ne ahittu mini naa bii ci moom asabibata ndaw wa siba ak ngune il fay ni ñu de ñaari xarit mm-hmm. yoo xam ne lay saa xooxuma de seen mbokk bi mun a kadin de ko ñu xatal mm-hmm. wara faltu tema daagu haale fa mm-hmm. fi aswa bi ay sin ci malani dundu basiqin buraaji guddu hasabatuhu ay caram ani xil muhayya buraaji rafet ji xar kanam xar xadi buraaji yaatu dund ba ma ko dund mm-hmm. su fekkoon jëmm la wala mm-hmm. muy garab mm-hmm. danaa garab ah, su fekkoon jëm garab la car yu gudd la xam su doon jëmm kel may lu rafet la xam dama ko doon dund dund boo xam ne lépp ko daan doy dund boo xam ne lépp ko daan xeme mu jàng loolu war a faltu ma daagu xaale yaasuwa bi ay seen ci malaami dund baata xin dund bu daa ci bu ko jaawaleeg saabiqin xasabaatu ay caram xani xil mu xayya bu daaji rafet ji xar kanam xar xadi bu daaji yaatu وقطرت من سهر السرور نواطرا وحصرت منه بالغصون الميت أيام كنت رخي بال في ذرى حتف علي موسن وموسدي أله بأحداث الزمان مراخما لأنوفها حبس الوليد المستدي مرخى العنان يرود كل لبانة مرحا بها مرح الفلو المخضب لا أقتفي ظفرا wala naaban wala mm-hmm. asjaali bayni muxawirin mm-hmm. aw munjidi baax na ko dafa wax dëkkam boobu mm-hmm. mu ne fala jeexale ayaam sabibatihi wa sibaa wa xatabtu tema witteefa nawatiran ay way na tax min zahari sorori ci tóortóori mbégte mbégte bu doon tóotóor yi ñoo witt foofu laa wittee gën a naat mooy suma mbég yi gën a ràññeeku ci àddina foofu laa ko xamee waa sartu tema gësëm mbaa nga ma fàq min wu ci mbégte bil xusooni ci bànqaas yi al muy yeddi ca de way jaayu mbég bu doon ay bànqaas yi ñooy xéeg da yaanu kon foofu laa xéenee ci féegee ci suma bànqaasu mbégte yaanu ca bam waa sartu tema fàq min hu ci mbégte mm. min xudooni ci banqaas al muy yede yede way jaayu mm. ayaama kuntu fan yama nekkee mm. raxiya baalin daaji xëwu ji xel wala daaji féex ci xel fii dara xadibin ci hëttëb bay gu daaji jañ abun xadib mooy bay joo xam ne daf lay fegal lu lay lor alaya ci man mu wassinin ku daaji yee ba mu wasidin daraaji gaganaayal mm-hmm. jamono ba nga xamee ne xel laa xamee mm-hmm. nga ne jaaxle fa dina dikkaluma mm-hmm. ma nekk ci hëtt bay boo xam ne su ma mucc ñor na ko daf may defaa ndar bu baax sama nof la itam eh, ñor na ko daf may yee pour ma nelaw daf may tëddal itam pour ma tëdd tëdd bu jag ay yaama kuntu fan yama nekkee raxiya baalin daaji féex ji xel dara hadibin ci hëttëb bay gudaaji deñ hadib mooy walidin mudafia alayhi ci man bay boo xam ne daf moy défendar dama fegal lépp lu war a indi lor wasinin kudaaji yee bay boo xam ne daf may tëral dama ne ma bu nelaw jotee fekk nelaw ma du nelaw alwasan mooy jëmmintu mu mu wasidin te daaji gaganaayal muy ma gaganaayal muy wasaata yawma diin boo demee ci xaaj bu ñetteel ba. yaakaar hmm. naa sabru sawatayni. Hmm. téere boobale. Hmm. dana fa jàngale nu ñoo yaree gune. foofu laa ko teg. waaw foofu laa ko teg dana fa jàngale yi nga xam ne gune bu juddoo. te ba mooy ràññee ko. ànd ak xew-xewi jamono yi muraaxiban daaji toroxal li unu fi ha ñaal bakkane xew-xew habasal walidi kem fo ha gune al mustadi ku daaji def istidaa istidaa mu xam ne lim ni doon mooy li gune yi wax ruun ndombo noonu mu ne xew duma gàllankoor ci sumam po liñ naan xaree ngi tàkk loolu man ñi comme ni nafas fee nekk mm-hmm. man du ma ci bokk suñ mm-hmm. naan ay feebaran fi mm-hmm. ne koy xilaat ba muy nafas fee nekk man du ma ci bokk suñ naan beekoor am na ne koy xilaat ba muy nafas fee cawar tànde man du ma ci bokk temps boobu daal dama mel damay wan jamono na ko e bu la neexee ak bu la naqaree loo mën a indi rek ko alxoo may ko bi ahdaadi samaani ci xew-xewi muraaximan daa ji toroxal li unuusiha bakkani xew-xew yi abasal walidi kem foye gune al mustadi ku daa ji dem istidaa istidaa mooy ni ma mooy li ñoo mur xalay naa ne dëkkuñu yoor gogam maanaam bu njëkk xam ne booba lu bëri fas lañ ko daan defee xare yeeg boo fas buum laabam yaakaar naa der la daan doon wala lu ko demee mm. mi koy war fi ngay mm-hmm. fi sa loxo war a xem dañ mm. koy defal pas-pas bu mag a mag xëw ko mm-hmm. ndax fas woowu su fekkee dem nga bëri ko féq mm-hmm. rattaxa buum gi dana kal sa loxo ba sa loxo du daw dana la dimbale ci nga man di ko tourner nu la neex boo dee xëw xëw bu moo tudd xenaan soo ci da yombal poñe fas wi parce que nag boo ko amee bu ko amee. Hmm. te soxla poñe ko. parce que comme que rek muy yore. Hmm. mel ni lu fi nekkewul dara. Hmm. mu mel ni ki nga xam ne gune la. dafa guñ ci moom dara bay wax ne tën. waaye nag du kuñ gàcce dara bàyyi ko ci liberté am. muy wax ci lu ko neex rek maanaam kuñ gàcce dara lu ko bàyyi ci liberté am. muy wéy ci lu ko neex rek. jamono boobu xëy na am na bopp. waaye dañ ko yor. mu war a xaaral naa ne naa yàlla dañ ko bàyyi rek liberté ko. doon taa du gut fu ñuy waxee ne tëna mm-hmm. wante gàcce guñ ko dara mm-hmm. yarudu dana mu tàggat kulla lubaanatin bépp haajo mm-hmm. su fekkee baatu lubaana danga lamma laam nga defal ko taa mooy firi alxaaja su fekkee danga dindi taaj nga kasalango al kon mooy ay sow jamoo laban la su fekkee da nga dindi taagi nag bu ko defee nga fataa laam gi muy al labaan mooy asadru nga xamee ko noonu baat bi lii la ci ay luxa yerodu dana mu tàggat kulle lubaanatin bépp haajo mari han daaji bég bi haa ci moom marahal kuluwi kem bég ak mool al mux didi bu daaj yee ci buum laabam wala bu daaj ñoddi ñax ci ñattam mi mu ne rek maa bëgg-bëgg bu ne rek ñii ma ko indil may dund ci mbég mel ni mool woowu nekk ci hudam di ñoddi ci ñattam di tëbantu mbég moomu laa amee lu baax na mooy soxla yi nga xam ne duy doon bëgg-bëgg yi nga xam ne duy doon lor duy doon soxla bu fade waaye bëgg-bëgg la rek loolu mooy lu baax nag xam ne daanaka nit fa koy tal rek xam ne itam boo demee ba dugg jaamu la mu ngi jàng fala qada ahadun minha lubanatahu walantaha arabun illa ila arabi mu ne xaajay lubaana kenn mënu ko jeexal ci fan yi ndax bu pare beneen dikk fala qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi laa ko sii waxtaan mu ne yoroo duna mu lubaanatin bépp haajo mari han daaji bég bi haa ci moom marahal kulubi kem bég ak mool al muxdi di buraaji yee ji buum laabam laa te fii déet may zufran we wala naban du caa gën bëñ hmm. kuy hokkee mbaa kuy màtte hmm. su yoon newu ci moom hmm. mooy nangam fi ma cee def dara mbaa nangam fi ma cee wax dara te yëpp kalaasu ma ci lenn zufran we wala naban du caa gën bëñ wala asiya déet may jàq li bay ne muxawirin ngir tàggaloog aw munjidin wala ji hee somo faale huma borom daraja yu kowe ak borom daraja ju suufe man daal xale laa xaama liggéey xaama lu may fa màngee fo rek bokkuma ci jaaxle bokkuma ci lenn wane wala asdia den may jàq li bay ni muxawirin ngir tàggaloog aji ba tukur aw munjidin wala ji hee somo baax na boole ilmun wal xutub xawasinun wal aysu xaddun wal amaani xuppadi mu ne wa dahru jamono silmun aji jubóol ak man dafa mel ni jamono dafa ma lonk pour ñu jubóo ndax yi mu tiitalee nit ñi warun ma ca dara wal xutoobu mbambare yi mooy yu diis yi ànd ak njàmbat dafa waafiloon way sàgganee lañ ma li ñoo jàmbat man ama ci benn yëg ama ci benn jànkuwante dafa mel ni tiis yooyu xamaguñ ma walaay su dund bi dafa doon aji la dund bu naat lay dund wal amaani mébét yi xuppat yi way surga hulañ ma nee na lii mooy ayaam sabibatihi wa sibaa ba tey rek ca neexas fan yooya ci lay wéy dala innil mu ne maa dawxatun taynaanatun aw rawdatun bi xamilatin aw fi yafaahin an sahabat alayhi suyulaha musnul haya wa saxat alayhi bi kaffi waakifiha nnadi yusqa min alwasmi mutraa kasihi wa yusaanu min nasjil waliyi bi burjudi min kulli saabixati duyuli ka annaha akarun tusaamu ala ruba bil murhidi ñu jàng loolu mu ne maa daw xatun déet danjaama mooy garab goo mag a mag ndax am bu mag dañ ko wax daw xa lu mën a taw daal loo xam gerte keram yaa ci jëfandikoo fay naa ne tun gu ji sëq mooy garab gu bëri kawar garab gu bëri xob bu ñu rajulun ku bëri kawar aw raw da tun wala toola dër bi xamilatin ci xur mooy ku nangu garab aw fi yafaayil wala ci doomu an diri ji daa ji yëkkateku mu ne sàllaaw danjaama gu sëkk keram lëw lool ak ker googa nu muy neex neex wala sooga dër boo xam ne dañ koo def ci fu nangu foofu mën naa doon aw xur mën naa doon doomu ji yëkkateku sàllaaw foofu ak lu neex neex bu tool dër ba nekkee ci digg naatam déet yii bi alasta mintil ka layaali ca kanam maa daw xatun déet danjaama mooy garab gu mag naa ne tun gudaaji sëq mooy gu bëri xob aw rawdatun wala toolab dër bi xaminatin ci xur aw fi yafain wala ci doomu an jëdin juraaji yëkkateku xam ne saxaaba diri na alayhi ci dongo jooju mus nul hayaat niiri taw suyoo laa seeni lafit mu nekk dongo joo xam ne niiri wat ci seeni lafit mooy dama joo xam ne xiin na tiim ko xiin yu hubalee hubale wasaxat te ñu tabe ñoom musnul haya alayhi ci dama jooju bi kappi waa ki fi ha ci tenkal aji dotti seen an na yu yu rëy rëy xam ne daf caa taw taw yu rëy yu yaatoo yaatu yoo ne xiin yu hubale moo ko jiitu taw ñaare bu nar xinam dafay hubale waaye su fekkee xinam dafa demee benn boor rek xim taw mën na koy rëy sax waaye mën naa bañ a yaatu ñaare bu dee taw foo xool muy leer rek foofu ñaare taw bi àggu fa nekkul de taw wara saxaaba dirina alayhi ci dongo jooju musnul hayaa niiri taw luñ fa diri suyoo lahaa seeni lapit wasaxat te ñu tabe ñoom musnul hayaa alayhi ci domo jooju bi mm. kafi waa ki fi haa ci tënkal aji dotti seen mm. am na di ku raaji tabe def na ko nandal moom domo jooju mm. minal wasmi yi ci taw ak ciibu mooy taw yi muy njëkk a taw mutraa kasihi kaasam bëri bu ñu feesal wuyu sante def na ko muuree ñoŋeele bi burjulin ci mala nag burjul min nasjil wali ci rabbak tawab seppali mu nekk dama joo xam ne balaa ñu cee def tool maanaam ah, balaa ñu cee def tool bi fekk na mu taw taw bu rëy maanaam mu nekk dama joo xam ne taw na ca taw bu rëy ba lépp lu war a sax rek doxoon lu wow gaje feene ci taw boobu ndax mandi na lool bi loolu amee mu dolli aat beneen taw bu rëy boo xam ne lu gëj a feewoon ci taw bu njëkk ba sax na nga xam ne boo xoolee suuf si wert rek ngay gis moo tax taw ak ceebu ci la naanee kaas boo fees kaas boo fees boo ko naanee da ngay mandi mar bi amoon ci suuf si ndeg gëj a taw lépp lu ci nekk wow koŋ daf caa taw taw bu rëy mar googu dëñ lépp loo xam ne dëhëroon na te lu war sax rek dal di gëjal mooy na ñu sàngee ko am malaan moo xam ne taw képp le moo ko rabal mooy ba mu tawaatee tawam ñaareel nag la ca defoon lépp sax boo xoolee suuf si wertam sax gën a ngay gis mel ni luy sàngee am malaan li na ko nandalee moom doomu jooju minal wat mi ci tawam ceebu mu trans def na ko nandal minal wat mi ci tawam ceebu mu trans si kaasam bëri bu ñu feesal salaw ci matarun wasmi ci lañ ko nandal kasan mutraan mu mandi lool wayu saanu def na ko muuree bi burjudin ci malaan ak burjud min na dil wali ci rabak taw teppali ci matar wali di keenak ci la sàngoo malaanam burjud min kulli saabixati zuyul tukkee ci bépp niir wu daaji jot ay lasit yoo xam ne ka am na a daanaka ñoom asarun mbooloom gëlëm la te saamu moom def na ko mang ala ruba ci sundi bil murhidi ci sàmm bu daa ji bëri coow mu nekk niir yo mu nekk taw yoo xam ne ci xiin yu hubalee hubalee la baxoo xiin yoo ne bi hayaat yi di dajee dogodo muy muy doqin yi mm. xayaatin te bokk fuñ jublu mm. ak dënn yu suuf yi maandan muy yaakaar loo taw mm. lu muy niru mooy gétt gu dem juróomi téeméeri gëlëm sàmm bu bëri taw jiital leen boo seetloo bokk iñ bokk fuñ xenu moo tax mu ne ñu da ngeen dënn yu suuf yi maandan mu yaakaar loo taw mu ni doo xajji sàmm yi mais ka annaha daanaka moom xakarun mbooloom gëlëm la te saamu moom def na ko màng ala ruba ci tund yi bil muridi ci sàmm bu bëri taw ñu jàngal lool loo bu jumaanaa ba taqalladat لبب الرياض بحليها المتبدد فتدفقت أنهارها وتفتقت أزهارها في روضها المستأسد وتفاجلت أطيارها وتمايلت أشجارها كالمثمل المتميد وجرى لطيف نسيمها برياضها جري السلال بغصنها المتأود ما شئت من ثمر يلذ ومنظر xaniqin wa sawtin fil xusuuni mujassadi wa xabaabi jiryaanin yuxalxilu saaqa am ludin biha sax mit sawaa'ibi mubadi daroon mel la saw bi mu ne nasara wisaare na al junoobu galawu junoob mooy galaw li ànd ak dëkk xiin jumaanaha seppi ndoxam yu mel ni wurusu jumaan fata xallata rango laba bu riyaa bi furaxi gàncaxi tooli dër yi bi xal yaa ci seen takkaay ñoom niir yi al mutabat bi takkaay lu daa ji tasaaro mu ne bi nga xamee ne li jóg na wi dëkk ndox mi muy sotteeku boo xoolee lépp lépp ni muy hàndee weex tàll tàll dafa mel ni niir yi dañoo amee woon ay caq wurusu jumaan caq yooyu nag moom la ngelaw li dagg nag kari tasaaroo boo koy xool loolu nga lay niru parce que weex tàll rek ngay gis taw bi ci saa si ni muy rafetalee gàncax gi dafa mel ni gàncax gi dafa xalu trop wurus bi tasaaroo mu gaaw a gaaw wut ci takkaay moom wala eh, ndox yi mel wurusu jumaan ngelaw li daal li dëkk xiin yi bi mu dokkee mi commencé wàcc boo xoolee jaww ji ni muy àndee weex dafa mel ni niir yi dañoo amoon ay caqi jumaan caqi yooyu moom la ngelaw li tàgg nag fer yi di tasaaroo dafa xam la dal di dal di rango la ba bu riyaadi pour waxi gàncax di xal yaa ci dem sa kaay al mu ko bëgg di lu tasaaroo su ko sa kaay lu gàncax yi ci tool na nañ gaaw a gaaw ñëw wut waajoo ji amee ci takkaay saawoo ji ñëw parce que dafa xaddal di jëñu anhaaruhaa yoon lay tool yi bëri yi tool dër boo dem yaa ngi fekk yoon li yaa ngi fekk dell ndox mi da bu baax a baax wa tafattaqa dal di hubbeeku asaaruhaa ay tóor tóoram fleur yaa ngi xool hubbeeku bu baax ci raw bi ci di bëri gàncax toolu dër yi naari fleur yaa ngi ubbeeku toolu dër yi am gàncax yi amul gàncax yëpp na yollu yaa ngi daw watafaqadu watadafaqat dañu ashaara anhaaruha seen yolnde watafaqat ubbeeku asaaruha seen tóortóor ci raw deha ci seen dër almustashidi guraaji bëri gàncax wata saa jëla salbi wëy atiyaaruha njanaawi tooli dër yi nga gis picc yaa ngi ci kaw garab yi de wéy nag watamaaya na di jaayu asjaaruha garab yi tooli dër nga gis garab yaa ngi jaayu ci raw de ak eh, ni ku ñu mandal al mutamayi di ku daa ji jaayu wajara taw latif na simiha aji ñëweti galawu na simam na sim ngelaw lay doon lu xam ne du lamboo seet buy sedd buy gëteem nit dana doy sedd ñaare nawet ba sebet ngelaw yooyu muy ci teg wala jamono sebet bu ñu seenu nawet ngelaw yi ngoon yooyu muy def boo ko seetloo air bu neex lay def ci nit ngelaw yooyu moo tudd na ne boo demee ba nag naat gi mu naat yal yi daw fleur yi garab yi na dafa feeñ ca air ba soo sa jëmm ngi ndekki ndax ngelaw lu ñaan lay dugg wala wajara daal di daw latif na seen yaa aji ñëgati garabu na fii moom buru yaa bayaa ci dërëm gar yo sulaale kenn dawal ndox mu sell ma joxos boo demee daal ndox yu sell ya nañuy jeexitale ci yari garab ya xeer bu neex ba noonu la jeexitale yooyu tam ci sa yaram maché tollu soog min samarin ci meññat yëlëg ci moom dana mu neex sabantarin ak ceetaan ani xin bu daa ji rafet wa sawtin ak baat mu jëkkatin bëri bu ñu saaral ci loxo soni ci bànqaas bi ne loo ko bëggee ci meññat mu neex na loo fa bëgg ci seetaan lu rafet am na fa ndax naataayu garab yi loo fa bëgg ci baat bu neex ndax wéyu njanaaw ya sawtun mu jëkk mooy baat bu xam ne neex na waaye ay qualité lay dikkee xam nga tey kii tëgg li muy tëgg dafa am nu baatam di demee kii wal li muy wal am nu demee kii wax itam am nu baatam demee ñoom ñëpp buñ dégg buñ jogandoor nga di leen dégg ndoor man naa yaa ngi dégg lu neex ci bakkan waaye ay kalite la lay dikkalee la lay dikkee nag loolu moo tudd sawtun mu jot sab gannaaw li day sab sabinam nii la gannaaw li day sab sabinam nële la beneen sabinam neneen la ñuy sabandoo ci toolu dër bi ci benn jamono nga nekk fa da leen dégg ñoom ñëpp yaa lu neex waaye nag comme benn baat la ay kalite la xam nga sawtul mujassad mudaatu samee la li ñoo dégalee nopp la mankarun ak aniya mudaatul basari la samarun latif mudaatu zawqi la kon toolu bëri la boo xam ne fiha mudaatul aswaaqi wal asmaai wal absaar waaw ni dafa bëgg ci seetaan bu rafet daa nga bëgg ko ci lu neex ci trop daa nga bëgg ko ci lu mën a dëgër nopp ma seetloo ko nañ sama ren ci ne ñëpp yàlla su ma gënoon mu neex ma ma bëriñ ak seetaan ani xin bu daal di rafet wa sawtin ak baat mu jëf ko dem bëri bu ñu saaral te loo soo ne ci bànqaat ma sita min tamarin wa habaabi jiryaalin ak suuri tam sàngara mooy ndox mu mel ni sàngara te neex gëm neex